ok ñu jeexalee ak euh, màggal ci jëmi boppam. Mhm. keroog ñu taxawoon ci solo si. Mhm. mais ren dafa ñëw ci benn période boo xam ne yaa ngi koy junj ci ginnaaw. Mhm. Euh, période la boobu daanaka buñ ko mënee wax ci crise la ñu fekk. waaye itam comme ni ma ko waxee woon keroog Afrique ci boppam daanaka soxlawaat boppam mel ni ay ndawam ñu ngi koy wane wanewaat. Euh, yóbbal bi nga xam ni yaa ngi koy séntu ci màggalug ren lan lay doon. yóbbalu màggal de dafa war a doon ci discours yi ñuy def. ci cérémonie yeeg waxtaan yeeg. ñu jéem a xool ci tolluwaayu situation réew mi fii mu toll ñu wax ci. Mhm. joyante waat orienté waat ndaw ñi. ndax wax naa la ko ne léegi sëriñ Touba mbooleem lu mu bind. Mhm. luy gindi aw askan la luy defar aw askan la kon mboolem lu ñuy wax war naa doon luy gindi aw askan luy defar aw askan. kon bu ñu tollee fii ci màggalu Touba tollee crise bu tol nii dara ëpp ca solo ñu orienté débat yi ak waxtaan yeeg yuy am am lu solo ci ci domaine boobu noonu. Mhm. réew mi yàpp naa ne foofu la toll. Euh, mbir yi daal doy na waar <laughs> sëñ sëñ Mansour. muy noonu ci solos màggal daal moom xam naa ne mhm. foo ko takk weesu na ko. Mhm. ngir Serigne Touba ab dayoom akub liggéeyam kenn du ko sekki sàkk. Mhm. waaye nag ñun ñi mu fi bàyyi nanu xool nan lañu war a doxale màggal gi. te fàttaliku démb bi màggal gi ak solos màggal gi te bañ koo def puukare gis naa it ñu xewal ci leen. bu màggal gi jubsee ñaan day diw na génne aw way diw ñu ngi lay xaar génneel aw way mais sëñ bi lan mooy léegi moom léegi moom lan mooy lan lan mooy way <laughs> sëñ Tuubaa danga lan mooy yoonam ci way bu dëgmal see daanaka ku ne da nga génnee si nga ay doolu dañuy def ba dem dem ba def ku yitte joo xam ne <laughs> loolu lan la jotee màggalu Tuubaa ay way niveau yi daal dafa suufe man daal nit ñi dama leen xool mais dina ci am yu xaw a neex nag seex bi <laughs> man de xam ne ma ci wayu neex ak bu neexul ndax man sama yitte daa kawe lool mhm. ndax man damay xënte woo xëy ci màggalu Tuubaa ñu wàcce ay kaamel mhm. buñ ci jógee jublu ca bernde ya daf maa doy sëkk di seeraan ay way ak di déglu ay musique moo tax sénégalais yi daal seen jot gi moom war nañ koo bàyyi ak yitte ci suufe ji te soppi xar kanamu suñu doxin te jéem a am yitte ci soppi suñu euh, réew ni muy doxee jéem a roy ci suñu moroom yi nga xam ne ñu suñu territoire yi ok foofu la Afrique toll mhm. ci soppi xar kanam daal boo xam ne gis nga ndawi Afrique yi nii nuy doxee ci territoire bi ok ci loolu la lañu war a roy ñoom. ma bàyyi la nga def sa message bu mujj. waaw message bu mujj kay moom xam naa mooy tàggatoo rek. tàggu mm-hmm. sénégalais yi. Mm-hmm. di wax ne nag amoon naa yéene dem tuubaa màggal yi waaye. Mm-hmm. daf maa fekk ci ab tukki damay génn suba incha allah rabbi. réew mi waaw waaye lépp lu nu war ca Touba it. def nañ ko fa. waaw sunu jëmm teewul. waaye sunu dooleek sunu lépp teew. mu nga fa waaw bu ko defee dama sama mujjantalu message mooy Touba kanam maa ngi rafetlu seen liggéey. ci taxawaay bi nga xam ne ci diir bu gàtt lañ leen jox ndigal ci ñu lijjanti ndoxum Touba lan ca def ak lan ca avancé sori nañ ca moo gënoon ñu bàyyi meeru Touba bi nga xam ne du faste xànc ak moroom non ma am na ci ñoo xam ne sax dañuy saboote di dagg ay taux ngir entreprise yi indi si di jaay ndox ger guñ leen di ger ngir ndox moo mën a jar suñ bi xoola jëf yi suufee xool a jëf dégguma dégguma li nga wax de sax dama ne la mhm. am na ñu bokk ci meeru Touba ñoo xam ne mhm. dañuy sant ay nit ñuy dagg ay taux ndox pour ndox mi bañ a am. ngir bañ ndox mi bañ a am ngir entreprise yi indi ndox seenum ndox mën a jar loolu am na biir Touba sëñ bi xoolam mbon googu ta nga ne da ngay liggéeyal sëñ Touba mboolem kuy xëy meeru Touba noonu sëñ Touba nga jot na ñu jëli yat nag fekk leen fa duma leen te soppi xar kanam Touba benn ñu jox ma commune ba. Mhm. maire ba bokk wala ñu jox ko Touba ca kanam. pare nga yow pour laaj. je suis pare de tous les dinaa ci dox dinaa ci wax dinaa ci liggéey. jaajëf incha allahu rabi gabon ngay màggale ji wala tukki bi wala. non non gabon destination bi waxaguñu ko. Eh, non non gabon moom dama du duñ ma dégg duñ ma gis. ok <laughs> jaajëfal nañ ko bu baax a baax mbégte bu yaatu la ñuy am ñun ci jano ak moom waxtu wu nekk ci jotaay bi di la république jàpp nañu ne tam moom ngeen am yéen suñuy internet waxtu wu nekk ngeen ci ànd ak euh, ñun ci li nga xam ne moo di jotaay bile nga xam ne moo di laa république jaajëfal yaas euh, mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi ak képp koo xamante ni suñuy programme dara du la ciy raw jox leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen invité waaye itam euh, àndandoog sëñ bi itam jox leen dig daje ca euh, màggal gi moom day génn waaye Sunugal 24 moom incha allah dina fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di euh, boobu lépp fay ruusee jàpp nañu ne ña ko war jëriñoo ëpp na ña nga xam ne ñooy wuy si ci dëkk bu sell boobee kon ku nekk ca fa nga nekk ci réew mi la wala ci bitim réew Sunugal 24 fas na yéene dëgtal la ba mu mel ni yaa nga ca wetu ku tedd ki di Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñaanal ko mu yàgg koo taxawee waaye tamit yàgg ko fekkee te lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci bés bi rek suñu borom euh, wasaare ko ci àdduna delloo si jàmm ci Sénégal surtout waaye itam delloo si ko ci Afrique ak euh, àdduna bi yëpp sant nañ leen gërëm leen jox leen déglu jee ëllëg incha allah ak beneen invité ci bila la jotaay di la république jaa ngeen